baaxoo di seetaan laa si xew gi TV euh, gis ngeen nag tey benn xew-xew benn jëyi moo xew fi nga xamante ne moom moo di Touba euh, hôtel bu bees Sonatel 2 euh, bi nga xamante ne moom moo bàyyeekoo benn pono jaar tëgg caam dem directement ci Sonatel bi porte lampe bi ñu fekk fii nii nag muy tàkk depuis ci timis boobu ba léegi ñu ngi fexe di contacter ak ñi nga xamante ñoom di waa Sénélec waaye mënuñoo am accès ci ñoom finalement lañ mujj woo sapeur ñu ne contacté nañ leen mais depuis boobu léegi excès guñu te nag commencement bi nii rek la gis ngeen ni mu mel te kenn xamul aussi tamit fi nga xamante ne fa lay mujjee ji te lii aussi tamit lu ñu war a mën a jël seen ay matuwaay la normalement war nañoo mën a bàyyi ay ay contour yoo xamante euh, tey bu jëy ju nii amee rek dinañu ko mën a dem couper ko directement ndax tey bu a euh, fekk nañ fi aussi tamit suñu ay euh, mbokki taalibe yi nga xam moom moo di micro bi laaj leen seen xalaat waaw lii de day affaire boo xam ne si xëy na du lenn luñ du du programme boo xam ne si bu bu luñ mën a la parce que lu ñëw la ak dogal waaye nag li ci conséquence bi daal mooy fi ñu toll nii affaire bi nii nii jéggi na dayoo jéggi na dayoo ndax problème courant la te courant ku ne xam na ni jée yi mën a def et tamit euh, li li gën a nekk conséquence bi mooy bu ñu woowee kii euh, Senelec buñ leen woowe wala Sapor dañ leen di woo ay. trois heures de temps wala deux heures de temps yoo xam ne si duñ mën a ñëw te ku ne xam na ni safara moom léppam danger la vraiment tamit mën na def ci minutes yu néew mën naa def lu mën naa yàq loo xam ne si kenn du xam-xam na mu toll et puis tamit euh, fii ay ay njaboot lañ yor te xam nga tamit vraiment tamit suñ sañoon buñ amee yenn conséquences yi bu ñu waxee rek dañoo war a ñëw ay njaboot lañ yor ay xale yu ndaw booba léegi ñu ngi traîner ci mbedd mi xam nga te kenn amu ci benn pexe conjugage bi lu mu gën a gën a gën a garaaw garaaw mënuñoo def benn pexe lu dul woote yéen ñi nga xam si nag yéen la ñuy woo wàllu yéen waa Senelec wala Sene wala wala Sapor daal bi doon na rafet bu ñu leen woowee maanaam ngeen mën a daal di teew vraiment tamit ndax tardement yi moom nemmiku nañ ko ci toujours problème yu mel nii ay fil gu ay poto bu daanoog fil gu dagg ak euh, poste bu explosé yooyu yëpp dafay am mais tamit vraiment tamit lii moom ñoom ñu ngi koy ñaawlu ñun moom dañ koy ñaawlu carrément parce que tamit vraiment moom li gënoon a rafet mooy bu ñu leen woowee ngeen mën a ñëw jàppale ñu ndax ci yaakaar waaw ñu bàyyi xel que ni xew-xew yu mel ni saa amee moo xam muy sapeur moo xam muy Senelec comme ni mu xewee ci côté tey euh, dañuy am jafe-jafe yi mën a yegsi euh, tey bu fekkente ne am nga message booy lancé ci ñaari parce que tamit dañoo def ay effort pour jéem a xëcc courant maanaam di ko utiliser kon nag problème boobu ñun buñ ci amee benn problème ñoom ñi nga xam ne si ñoo ñu ko jox di Senelec wala Sapor mi nga xam mooy fay lakk gi ñoom moom seen devoir mooy nañu opposition wu pour toujours buñ leen soxlaa rek ñu mën a ñëw waaye nag dafa am dama ci seetlu ay kii yoo xam ne si parce que buñ leen woowee rek dañuy tar tarma boo xam ne si vraiment tamit da ngay jàpp ni lii moom dañuy xaw a mel ni lu sobental woote bi te bu booba maanaam problème la boo xam ne si bu urgence la ndax sawara moom ku ne xam na ni su amee rek urgence la waaw bon bon dañoo war a taxaw def seen i matuwaay ak lu ñu ci man ndax sawara moom du euh, courant doonu loo xam ne si population mooy tange ndox def fay ak affaire yooyu problème mu Sapor la ak Senelec kon li gën a rafet mooy buñ leen woowee rek ñu ñëw waaw loolu daal moom man moom laa ci gën a kii moom moom laa leen di gën a lâché appel jërëjëf muy kaddu kadui ki nga xamante moom moo di Serigne Cheikh kadui mu yi am am solo jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Sapour euh, jëmale ko aussi itam ci nga xamante ni ñoom di waa Sénélec kon su ko defee rek yéen euh, ngeen ci xel bu baax a baax a ñaari service yooyu moo xam muy Sénélec moo xam muy muy muy Sapour euh, te ngeen xam askan bi moom moo leen fi askan bi rek moom leen ñor kon bu ko defee ñu ngi leen di jaajëfal dinañ leen toppal affaire bi ba fu di mujjee ki bëtam nii mu taxaw moom moo di Serigne Bara Sow Bara yaakaar naa ne mbir mi bi muy tàkk fi la la fekk alors tey nga gis bu lan ngay wax ñi nga xamante ne tey ñoom ñu ñu responsable bi. waaw lii moom ñoo ko gisandoo gis nañ ko bi nu depuis une heure de temps ñi ngi taxaw nii gis nga ko te lii wax dëgg yàlla xam nga ne mënul continuer parce que début bi lañ gis nii rek mais xamuñu fu mu yem vraiment lii sooba léegi ñi ngi woote ñi ngi woote wàllu mais mënuñoo fexe ba gis kenn wax dëgg xam nga ne lii metti na te yéeme na xale yi kenn mënutul génn te lii wóorul te commencement bi leen gis nii rek mais xamuñ mu fan fan lay yem quoi wax dëgg yàlla sonn nañ wi sonn nañ trop. parce que yu mel nii bu amee da ngay jaaxle sonn fu ne da nga fay woote mais dara wax dëgg yàlla war na ñoo taxawu ci yu mel nii ba nga xam ne bu amee ñu mën a teel a jël suñu matukaay parce que ay njaboot lañ ay xale lañ te lii wax dëgg yàlla xamuñu fan la fan la fan lay fan lay yem daal vraiment waaw alors ñu ngi ñaan yàlla euh, mu bañ grave waaye mun naa ne grave na ba pare sax na kay mu euh, bañ a yenn niveau yi nga xam te ne dina gën a euh, sonal nit ñi te mbir mi li nga xam te ne moom moo ci gën a dangereux dafa nekk ci wetu poste alors que am na ne mi ngi ci suufu porte bi def directement wàcc bu fekkente ne jàpp na rek mën a dem directement ci biir poste bi te boobaa euh, dina gën a métti ci askan bi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkkee alors euh, fekk nañ fi aussi tamit suñu ñeneen ñi euh, jëwrin xam naa après dañuy def jox leen suñu micro rek bu ko defee ñoom tamit ñu sànni ci seen xalaat dégg ngeen yi nga xamante ne moom la sëñ baar Sow daal di yëkkati jëmale ko ci xew-xew bi nga xam ne moom moo fi xew jërë ngeen jëf